Sénégal moom soo amulee koy fenal day métti xalifa nee na léegi daa koy xalifaay baa doola <laughs> garaawul xaar ma jéem a woo saay <laughs> man man yi moom xaw ma si dara allo bisimilah. ah eh, eh, Issa booy booy. jàmbaar naka mu. booy naka mu. gëj déggante. sant sant. mbaa yaa ngi am taw fee. ah maa ngi nii rek maa ngi nii. sant temps nga réer ah, <laughs> maa ngi fii rek temps yi Canada ah, temps yi pass Canada laa demoon Canada ah. laa man ki nga ma nag woo ma pour ne meeku la dama la woo pour ñu waxtaan rek. ah daa jàmm fa xew. ah seen cas yooyu dégg naa ko. assemblée de man man damaa jommi sax. déedéet waay. Ah, man démb daal daal damaa romb suñu koñ dégg coow lu bëri man pour man assemblée fu sama koñ da nekk sax ma ñëw nakati kii la ndawtal <laughs> ah assemblée de Sénégal mooy assemblée de léegi comme ndawtal noonu la demee nag yi passé moom si wur naa ko bu démb bi tamit aussi hmm. gaan mooy mooy loolu de suñu dëkk bi temps yi doxatul de ah, mais mais ah, dëkk bi dëkk bi dëkk bi léegi man damaa dem ba lii lii est-ce que duñ ko di dissoudre maanaam duñu jël assemblée bi rek ne du amati parce que amul sens non li nga wax noonu mooy cas bi nag li nga wax noonu man dama xam ne dama yaakaar ne gars politique laa xamatul boobu nu muy doxee wala lu muy fonctionner woo quoi si biir Sénégal. wala ah. boobu dëkk yëpp noonu la mel. ah non dëkk yëpp melul noonu soo demee États-Unis ni gars yi dañuy toog régler te États-Unis mooy puissance mondiale mais ñun exemple bu baax ñun ñu ko joxe. ah jaaxal na ma de. ah jaaxal na ma de. mais xoolal xoolal Côte d'Ivoire doo fa dégg histoire ah xool ay Guinée doo fa dégg histoire mais chaque jour Sénégal. maanaam ngay dégg assemblée bi euh, histoire comme nawetaan. jaaxal na ma de est-ce que du xëccoo bi nag gars ku nekk jël sa wàll rek benn yoon mu jeex. c'est tamit nag benn affaire dafa am président assemblée nationale soo koy jox da nga koy jox nit koo xam ne dafa charismatique mais président assemblée nationale yu fi nekk yépp mooy loolu ah. doy na waar de. xoolal waa ji ñu ko jox rek moo nekkoon RTS naan couple placé A. 5500 francs waa ji la de. mu ngi noonu <laughs> soo ko mu yaakaar ne gars yi ay fas mu yaakaar ne yi ay fas lañ Sénégal dafa métti. Ah, démb de xoolal loolu kaa la loolu kaa la. waaw démb de di wax nga coupé micro bi. te bii passé rek benn gaaw APR joxe na teg na audio ñu bàyyi ko kii di teg audio nga ne doo ko teg mais où est démocratie. ah dafa bëri ay loi de. waaw ah. bëri ay loi ay code pénal te ñu ne leen moo l' article nangam moo ko wax moo tax ñu def ko yow doo comprendre te dañ koy wax si plateau dem seen kër fàtte ko. parce que dañoo xam ne ne sénégalais yi amuñu jot lire benn article amuñu jot liir benn loi moo tax chaque jour ñu génneel ñu lu bees chaque jour. ñu ah, génneel ñu lu bees. mu ngi noon mu ngi noon de ah man day gaañ damay suivre rek ba ma suivre comprendre waaw. man léegi ma xool positivité ak négativité ma xool li la siy jëriñ. est-ce que démb sax démb démb séance plénière bi soo jàppee mooy yenn tele yi dañ ko teg suba si bu guddi si mais est-ce que Sénégalais ñoo ngi koy seetaan parce que amatuñu seen jot. Ah, assemblée léegi dërëm dafa yàqu. waaw c'est ça de. assemblée dafa yàqu mu njëkk ba assemblée nationale ay gars yu responsable ñoo fa ne mais suñuy dem ba léegi góor di dóor jigéen biir assemblée mais ni ku nekk biir MMA xam nga ne assemblée yàqu na. ah doy na yàqu na. parce que du du du ñu gisuñu problème yi mu bëri ñu yaakaar noonu lañ ko war a mën a régler ah. au point. Ah, léegi violence dafa. loolu du ah. politique de man boog li ma xam boog si politique loolu du politique de. non Sénégal politique am. Ah. président bu fi munti falu su nekkee changé wuñu suñu bopp yi. nii lay demee maanaam yow. président bi da koy war a jàppale pour mu liggéey si dëkk parce que da nga ne da ngaa bëgg Sénégal mais da ngay xeex ak moom. président bi tamit war a jàppale opposants yi pour ñu nekk si jàmm moom tamit mu ne da leen di galgal maanaam ñun daal ñun daal surtout loolu man Sénégal damaa gis ne opposants yi amuñu fi droit exercer wu amuñu fi droit opposé wu c' est ça qui me pose problème quoi. bu fekkee ne liggéey na lu jaar yoon sax dafa war a am opposant waaw masatuma laa nag mu nekk si dëkk boo xamante ne nii dañ ne dafa war a am dafa am war a am benn pédagogie boo xamante ne nii euh, nu mu nu ñu koy waxatee sax euh, da ngay am libre expression si wax loo xamante ne nii si wàllum politique la wala dara mais ay milliards lañ fiy tudd si dëkk boo xamante ne c'est un petit pays ñu fiy tudd ay milliards rek ngay dégg. Ah. waaw mais assemblée stade plénière la pour pour la plaidoirie mais pas pour ñuy xeex wala boxe truc genre. ah ah yooyu ngay wax uh-huh. milliards. yoo xam ne yow say jeunes kenn presque xaaj bi yëpp amuñu liggéey. dañuy toog di sommet. xool ma man fii rek man fii laay toog xalifa gardeloo ma këram gii may nekk fii di wër ku may woo aw ma kenn ku may woo man daal mooy loolu. ah doy na waar métti na métti na trop. doy na waar de métti na mais soo mënee jaar ñu teg caayin waaye. waaw loolu daf may neex gaan daf may neex mu ne jaaru ñu teg caa ñu kaakaa bi sax gaan ñu waxtaan si yeneen ñu yaa ma gën a xam ñu teg caa bul wari yow bul wari comme léegi xalifa moom nee na moom léegi daa mature yii amatuñ dara lu ñuy tàddakee damay daw léegi ñëw kay insha allah waaw damay daw léegi ñëw insha allah waaw waaw léegi léegi ok léegi léegi merci waaw comme xalifa nee na moom léegi daa mature xaaral a dem géere eh, <laughs> Maria Diarra qui, qui